mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci tribunal bu Ziguinchor nag bàyyi nañu manifestant yi ñu jàppoon keroog ci yàqu-yàqu yi ñoom nag juge bi tey daal na leen déglu ci xibaar yi ñu jot am nag teggi nañu loxo ci manifestant yu bëri ci fàttali nag ñu ngi tolloon ci limu ñaari fukki ak benn nit waaye ñu ngi ñuy xamal am na ñu bëri ci ñoom daal bàyyi nañ leen ñaar rek nag lañ ci jot a kon dem na leen ñeneen ña ca des ñoom bàyyi nañ leen ñu ñibbi beneen xibaar itamit jot nañ ko muy libération coordonnateur bu pastef nekk ca Tiwaawoon di Alioune Badara Mboup kile nag di taskatu xibaar bi di Mati Sarr moom mu ngi ci guddi yu setagul ba tey ginnaaw biñ ko jébbalee nag tey ci kanamu àttekat bi ab retour de parquet la am ci lu waa Seneweb nag joxe comme xibaar mooy dañuy dañ koy garder à vue ci week bi laata muy delluwaat ci altine bi ca tribunal la Ousmane Sarr moom it bokk ci mouvement nitu dëgg les valeurs moom it ab deuxième retour de parquet la am ki ko xamle nag di awokaawam bi di mètre Moussa Sarr njortu nañu nag dinañ ko juger ci altine bi ñu jëm moom nag liñ koy toppee ñeenti mbir la di outrage à magistrat appel à l'insurrection appel à la violence ak diffusion de fausses nouvelle ngir jàmmi dellusi nag ci réew mi ab benn délégation daal bu bokk ci groupe les facilitateurs dem nañu nag seeti kile di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di xalif général des Mourides kile nag di njiital Afrikajom Center di Alioune Badara Tine bokk ci délégation bi mu ngi sàkku ci xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ngir mu waxak nag njiitum réew Macky Sall ngir mu bàyyi nag ñi ñi jot jàpp nag ci prison bi waaye itamit yemu fa ndax sàkku na it ci moom tamit ngir mu wax ak Sonko ngir mu dal la lii lañ leen indiloon ñu leen di jox dig daje ci yeneeni xibaar